de Niger au Sénégal di nuyu monsieur le gouverneur de la région de Thiès di nuyu madame la représentante banque mondiale di nuyu honorable député yi fi nekk ak conseil économique et et les directeurs nationaux et régionaux et chefs de service di nuyu aussi monsieur le directeur exécutif FNDAPS madame le ministre dana difficile tey pour wax mais aussi dana neex pour wax may am mbégte bu rëy di wax samay mbokk éleveur li ëpp solo ci li ñuy def tey mooy déglu mais aussi dégg am na lu président professionnel bétail de la viande monsieur Amadou Doudou Fall wax nee na ñiy lijjante ñooy wax waaye ñiy liggéey ñu ngi liggéey c'est très important pour déglu ko xam nga Aminata Mbengue Ndiaye bi ñu koy jox élevage nit ñi dañu ne woon nañu xool bët am na lu mu xool nopp am na lu mu dégg naka lay def ak élevage yàlla ñu ba fii ñu taxaw tey di wax éleveur Sénégal mun naa ko wax parce que les professionnels bétail de la viande ak conseil national de la maison des éleveurs dañoo représenter les éleveurs dem au Niger te dem bi nju ciy félicité au fond de cœur ñañu yónni woon mooy Amadou Doudou Fall ak président Issa Gambala président maison des éleveurs de la région de Kolda taxaw nañu taxawaaye bu rafet dox li ñu leen yónni woon ba ko indi loolu yi ñu indi nag li tax ma ne nañu déglu bu baax li ñuy wax ministre élevage dafa nekk ko nga xamante ni kii moo géré secteur élevage mu seet ci biir département li nga xam ne war na koo mën a def lépp mu def ko te loolu li koy firndeel mooy gis ngeen tey tous les départements du Sénégal bu ñu la aliment de bétail du ñu ko interpeller dañuy waxtaan au niveau des préfectures ñu defar suñu commande ñu laaj suñu aliment de bétail ñu seddale ko nañu ko demandé du ci yëg dara du ci xam dara te loolu ay idem la gis ngeen tey ni ko Doudou Fall waxee ci rangs de Dolly demoon nañu ba ñu ko perdre mais yàlla dimbali ñu ak mbaaxu président Macky Sall mu delloosi ko mu laaj Aminata Mbengue Ndiaye ay proposition kooku defal ko ay proposition demandé ñu aussi suñu xalaat ñu ne nañu clôturer ranch bi clôturer nañu ko fekk ay fan yu néew ñoo inauguré clôture bi gis ngeen aussi tamit li nga xam ne def nañu ko ci forage ci biir réew mi te tey fii ci région de Thiès bi ñu nekk te noonoo nekk aussi dans tous les euh, euh, pays du Sénégal euh, dans toutes les localités du pays mooy chef de poste vétérinaire bu ne tey am na agent élevage te am nañu ay réservé yoo xam ni ñu aussi stock bu nekk au niveau de département te mu nekk ay technicien loolu nag ak yeneen ak yeneen suñu ko limee dafay bari te aussi mu ubbeeku nag mu ne li nga xam ne mënu ma ko am yéen Ismaïla Sow yow Doudou Fall yow Arouna Gala Jaalaal yow Aliou Dembour yow Oussama Ben Laden di Djiby Amady soow ak ñeneen ak ñeneen kenn ci yéen ku ne na am stratégie boppam mu interpeller partenaire seet ku ko jàppale mu boolek lamu mun ak lamu mun su ko defee danaa ci contribuer ci biir loolu la ñu interpeller FNDAPS man mii mu bokk ci o nom des éleveurs ci comité gestion FN DAPS mu ne aussi tamit lépp lu ñuy def te sama budget war cee dugg danaa débloqué ci sama budget ma dugal ci daawul am ay mag ñu am expérience ñoo fi toog daawul am ku doon gérer sa secteur da nga koy geere la ngay liggéey nga ne maa ko def moom nag doxalewul noonu dafa ne ñu def dañu maa yónni bu kenn sant sant leen Macky Sall event dars bii tey ci lii nga xam ne gars yi dem nañu ñu jële ko au Niger muy béy yii Doudou Fall wax na leen la nga xam ne moom la ñu war a génnee ci béy yi am na ay machines yoo xamante ni yi aussi tamit pour defar lu lekk jur la yooyu la ñu doon xool sànq gis ngeen aussi tamit séeréer yi li ñu defaree léegi ci yàpp bi bu ñu demee ba ñuy mën a defar lii tey nga xam ne séeréeru Thiès yi ay ñoom Simon mun nañu fuuy mun nañu bew parce que danañu mën a des defar yàpp waaye nag directeur exécutif FN DAPS bokku ci parce que moom séeréer moderne la beneen bi ci topp mooy loolu nga xam ne tey nas nañu mbokk yi nañu leen fekk bi ñuy bañ a nax suñu bopp dañoo nekk ci siècle de vitesse booy xalaat dangay xalaat di jëf mais booy xalaat di nas de travers stratégie ak ay galgal nit ñi rombala te boo naagoo dangay daagu te boo daagoo ñu raw la nañu jóge ci stade boobu sama mbokk éleveurs yi fi teew madame la ministre sama président maison des éleveurs départemental monsieur Oumar Demba Sow waroon na fi teew tey waaye dafa ñu représenté ci benn réunion boo xam ne bi dafa am commune de Fandène te mu nekk conseiller municipal moo tax mu toog fa tey ñu nekk danañu la représenté dignement maag ki nga xam ne mooy vice président di Jibi Ka ak Falla Dia di santa di gërëm Aliou Dembourou ak Arona Gala Dialal parce que def ngeen déplacement ñëw fekk li ministre bii di def ak ñun mais aussi di gërëm tous les éleveurs yi def tey déplacement ngeen ñëw toog. ngi ci bokk ma di leen féliciter pour journée bu mag bi nga xam ni le 10 décembre le président de la république dafa demoon présider leen ko muy la journée nationale de l'élevage à Ndioum te ngeen taxaw ci def ci seen jom def ci seen fulla yàlla xaw ma lu ñu mën a waxal éleveur de waaye éleveur bëgg na boppam parce que ku gis ni ngeen tooge nii ci woo bu ñu leen woo ci luy jëmale seen secteur kanam gis ni ngeen tooge woon keroog à Ndioum gis ni ngeen tooge woon daaw ca euh, département Koungheul gis année bi ko jiitu na ngeen tooge woon ca région de Fatick gis na ngeen tooge woon ca Kungkung séeréer lépp lu jëm rek ci président de la république déplacé wu ñëw di célébrer ak yéen li nga xam ne moom mooy seen cosaan ki seen maamaat ak maamaat ak maamaat ba sori ba yegg ca ca yonent yàlla ya ma loolu ku ko def muy law ba nëga ni jar nañu encourager jar ngeen a jàppale jar ngeen a euh, jur gi fi mu jógee dafa sori te la fi nekkoon rek moo jur li fi nekk ren la fi nekkoon ke ay maam ba fi kenn dëkkagul ba nëgë loolu moo fi nekk di dox kon ñi koy doxal fexe ba loolu law ñooñu ameel nañu leen njukkal bu mag fii ci biir Sénégal ak monde bi yëpp gëdd boobu nag ngeen def ci seen liggéey ak jom boobu ngeen def ci seen liggéey moo waral président de la république reconnaître ko jël benn journée jagal leen leen ko jël benn dëkk bu mel na Doli quatre-vingt-sept mille cinq cent hectares moo ëpp la région de Thiès mu jagale ko éleveurs yi ne activité pastorale rek la ñu fay def yéen mënu leen a fay président mais président tamit mënu leen a fay kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax tey nag li nga xam ne moom moo ñu fi dajale euh, buñ ginnaaw bi ñu nuyoo gouverneur ak autorité yi fi nekk yëpp te ñuy rafetlu liggéeyu Jean Charles fay mi nga xam ne mooy directeur u FNDAPS te liggéey bi yépp mu sukkandiku ci moom mu ànd ko ak ay éleveurs yoo nga xam ni du ñoo xam li ñu leen dénk lan la parce que activité bala nga koy mën a def nga xam li ñu la jox lu mu doon soo yoree organisation da ngay fexe ba organisation ba di avancer da ngay fexe ba organisation ba jëriñ askan wa nga xam ni ñoom ñoo ko sos mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir association ba donc tey bu fekkente ni association des professionnel du bétail et de la viande jóg na mu ànd avec la maison des éleveurs ñu taxaw fexe ba lu mat trois cent cinquante couples de chèvres de maradi ñu indi ko fi cela signifie que comprendre nañu seen liggéey parce que man santuma leen li ñu def ñoo xam ni duñoo bokk ci acteurs yu war a bénéficier wu ci fonds de développement agro ba pastoral ñu dem jëli ko ba tey jii ñu di ko jëmmal fii à l'ENSA de Thiès kon loolu ku ko def war nañu la féliciter ma bëgg ñaari organisation yooyu ak yeneen organisation d'éleveurs yi fi nekk yépp ngeen tàccu seen bopp ngeen xam ne liggéey bii yéen a ko waral gis nga ku toog ku toog di xaar ministre mu wax la ci li nga xam ne yow yaa ko moom yaa ngi yàqal sa bopp ministre dafa war a fekk ñoo nga xam ne ñu ngi liggéey mu jot jàpp ca wala mu gis loo nga xam ne mun na leen a avancer naam mu wax leen ko waaye nag bi nga xam ne moom moo ci gën a neex daal mooy ñi nga xam ne ñoo moom secteur bi ñu xam ne ñoom ñoo moom affaire bi ñu jóg di defaral seen bopp kon maa ngi féliciter tous les éleveurs li nga xam ne moo ñu fi dajale banque mondiale moo ko financé banque mondiale am na yeneen yu mu financé ci élevage à travers le pays jarul ma ciy dellusi si yi ci ëpp nag ci élevage ma nga ame booru Casamance muy Sédhiou muy Casamance muy muy Ziguinchor mais bi nga xam ne tey moo ci ëpp importance mu nekk près de 16 milliards moom la ñu tuddee PRAPS le projet régional d' appui au pastoralisme concerné wul région yëpp mais région yi nga xam ni ñoom la concerné mais fi nga xam ni fa la élevage bu ëppee ak fi nga xam ne tamit fa la changement climatique yi gën a tare pour éleveurs yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mais projet boobu aussi projet bu am importance la ñu ci remercier la représentant de la banque mondiale di ko waxal mu yeggaleel ñu sunu kàddu ba foofa li ñu fe dajale tey wax nañu ko dafa mel na cin boo nga xam ne dafa am ñetti wos benn bi mooy ñu renforcer les capacités des acteurs gis nga nit ki loo mokkalul loo nekkul nee nañu ndongo doo ci nekk sëriñ ëllëg kon formation dafa am importance ci éleveurs yi nag ak ci domaine bu mu mun a doon loolu moo tax lii ñu leen forme tey ci yi maanaam jàngal leen beneen technologie boo nga xam ne Niger tey mun naa ne à travers le monde ñoom ñoo ko fi gën a mokkal seen cliché beneen affaire la mais yéen ñi nga xam ni démb ngeen commencé bii ma gis ngeen def ko bu ngeen ko defaatee fukki yoon ragal naa di ngeen rond waa Niger di parce que sénégalais dafa xereñ te sénégalais dafa mën a innover dafa mën a yokk loo nga xam ni man xam naa di ngeen def ci cliché bi leneen loo nga xam ni waa kon ma di leen ci félicité beneen was bi mooy broyeur yi euh, broyeur yi dafa am importance ñun du ñoo demoon Niger man ak euh, le docteur Sakho booba mooy directeur u élevage bi ñu demee mu dem ñu wax ko waxu broyeur yi mu dem seeti ko dikk ni ma kii war nañ cee jënd ma ne ko effectivement war nañ cee jënd defar leen kay kayit yi war a tax ñu dem tey ba jënd ci waaye tey loolu ñoom Doudou Fall ak Ismaïla ñoo ma ko indil fii kon maa ngi leen di féliciter bi nga xamante ne def ngeen ba broyeur bi yegg li may wax nag éleveurs yi ci broyeur yi booy yéen a ngeeg lu mat 3 milliards ak nangam ci seeni compte te kooku li ko tax a jóg c'est la sécurité alimentaire du cheptel ba ñu koy wax ca début ba bi may soog a ñëw ñu bari gëmuñu ko woon waaye tey bi nga xamante ni cinq département am ngeen fa cinq compte bu ñu ko calculer muy 3 milliards 500 yi quelque bu leen neexee jëndi broyeur yu leen neex kooku duma ci teg benn baat ndax bokk na ci alimentation jur léegi damay waxtaan ak le gouverneur ma ni ko calculeel ma fukki broyeur à sept cent mille euh, nga def ko ci deux par commune y a sept euh, deux par collectivité y a cinq cent soixante-dix-sept collectivités ça nous reviendra à trois cent quinze millions éleveurs yi am ngeen ko kenn du leen ko may kenn du leen du ngeen ko ñaan kenn bu ngeen ubbee seen compte immédiatement mun ngeen ko jënd fan yii di dikk dinaa leen woo waxtaan boo nga xam ne dinañu ko waxtaane ndax la ñuy bay ci ceeb ca Ndar di ko bay tey ci Sénégal gépp di ko bay ki seen région de Thiès bi nga xam ne zone maraîchère la di ko bay ci Sine Saalum mu nekk zone boo nga xam ne moom itam la ñu fay def ci céréales bari na la ñuy sànni ji wala ñu daan ko taal na ngeen ko jël yéen pour dundal seen jur jar na sax bu jaree ngeen jënd camion ngeen jënd camion di ramasser ji di dikk di ko defar pour seen pour seen élevage dund bi dina wàññi ko kon bu baax a baax bu ngeen fàttali ko daa woo naa leen réunion boo nga xam ne loolu laa leen ni woon nañu toog ñu waxtaane ko waxtaanoon nañu ci ba xam production bi président bëgg ci ceeb ca vallée ba ñaata ciy am ci paille de riz ñaata moo ciy am ci son de riz am na wala amul ñu xool yeneen culture yi nekk également ci yeneen région yi lañu fa mën a jële la compagnie sucrière sénégalaise la fa nekk rek ci paille de sucre bi kenn xamul nu mu toll te li ci ëpp duñu koy lakk te ñoom il sont prêts à sa ça aux éleveurs mais kon kay beneen liggéeya ngoog bu bees di ngeen créer ay emploi pour xale yi parce que boo jëndoon tey lu mat 1000 broyeurs mais di nga am 1000 emplois pour ñu koy yore di nga créer également ñi war a assurer la maintenance ak entretien bi liggéey la pour ñoom ak leneen ak leneen donc kooku beneen réflexion la bu may inviter les éleveurs ci fan yii di dikk parce que loolu du xaalis bu ñuy wuti xaalis baa ngi ci CNCA xanaa kay defar bi defar bi te defar bi tamit defe naa ne ku ci gën a bari seen xam-xam seen ministre bi taxaw bariwul <laughs> ndax euh, artisan yi nekk fii ci Thiès gën a xarañ ci wàllu machine ñun ñii ñoo leen tabaxal prototype bi nga xam ni ñoo koy defar à travers tout le Sénégal ba ñu mën a am une harmonisation des pièces de rechange kon loolu je crois que bu ñu ci taxawee rek mun nañ cee liggéey ba liggéeyaale ki sax pour yeneeni secteur beneen bi muy troisième was bi mooy chèvre yi sànq maa ngi commencé woon di fàttali ci bureau directeur u ENSA en 1974 le président Senghor dafa ñëwoon fii ci euh, xombol bi mu ñëwee xombol man keroog laa jël service ci département Thiès laa doon liggéeyee mu ñëw ni éleveurs yi maral mi metti na te li nga xam ne moom dina ko wàññi bu baax mooy damaa bëgg seen bëy yii fi am ngeen rey leen ma indi leen chèvre de maladie yàgg na de waaye nag ndegam léeb la woon tamit chèvre de maradi yaa ngi nii yegg si ko waxee éleveurs yëpp ni pat mu ni leen du ngeen tàccu ñëpp ni pat mu ne kon xam naa ne soxlaagu leen ko kon nag affaire bi yegg si na léegi <coughs> beneen bi mooy bëy yooyu yaakaar naa ni am na lu bari lu mu leen mën a indil parce que suñu bëy yi buñ ci dee am un litre de de lait wala leen sax genn wàll litre lañ ciy am chèvre ñu ne la yow bii mën naa dem ba trois litres di indi li nag bi di indi war nañu ko fonk léegi laa doon wax euh, semaine dernière ñi ngi doon discuter aussi ñu ni mën nañoo jële ay nag France ñuy def vingt litres par jour am na sax yuy dem ba quarante litres par jour quarante litres ci benn nag xam nga kooku industrie la daanaka waaw tey bu fekkente ni Mar euh, euh, Niger am na fa beneen race bu tudd azawat mën nañu caa am six litres par jour yaakaar naa ni six litres yooya moo gën trois litres te yooya dafay nduróo ak sunu ay jur waaye liggéey nañu ko foofa liggéey boo nga xam ni lu lu mucc ayib la mun nañ cee am. may wax rek euh, à notre ambassadeur euh, l' ambassadeur du Niger euh, au au Sénégal que donc dans le cadre de la coopération nous allons non seulement continuer avec les chèvres de Maradi mais nous allons également travailler sur une autre filière la filière bovine à travers la race Azavat. que vous avez au Niger et qui fait une production de 6 litres par jour ñun fii bala sunu nag yi di am 6 litres par jour dafay fekk ñu boole leen ak beneen napp ñu tëbu leen ñu am ci métis bu demee na Gouzera wala bu demee na Montbéliarde yooyu dafay daal di cinq 5 litres wala 10 par jour donc loolu tamit nekk na lu am solo en tout cas maa ngi leen di féliciter parce que seen ndaje bii ngeen daje tey mun naa ni mini journée de l'élevage ngeen ma organiser fii ma kontaan ki trop.